Euh, merci beaucoup Aïcha je pense que ça c'est euh, à part euh, bus bi ñu fi wax sànq ñu taal ko c'est une question cruciale quand bi nga xam ne dafa toucher Sénégalais yëpp parce que boo ci amul doom bu jugee sa kër am nga ci mbokk wala sénégalais yëpp ñun ñëpp ay mbokk lañ mu nekk une question boo xam ni sur l'emploi ce qui concerne l'emploi des jeunes l'emploi des jeunes et que état mu ngi ciy def ay politique yu am solo mais ki bëgg a dem liñ naan ki bëgg a dee ak ki bëgg xaru ñoom ñooyam loolu kenn mënu leen téye mais man damay sama message si jeunes yi laa koy jëmale mooy samay càmmiñ dama leen di ñaan ngir yàlla c'est vrai que des fois situation yi dina métti nga bëgg def munoo def nekk ci kër war a faj te munoo faj yor soxna war ko jox munoo ko jox yor doom war ko yóbbu école wala nga war ko sàng munoo ko sàng dafa metti mhm. mais c'est pas une raison pour que ngay dem dans l'aventure gis nga géej gi ñun ñii di ay lébu sax bu ñu duggee ci biir dafa am fu ñuy yem ñu retourné waat waxuma la koo xam ne fi nga jëm xamoo lan la da ngay nekk si biir rek soit nga egg barsa wala Barça kon encore une fois je lance un message et un message très fort à mes jeunes ak ñi nga xam ne ñoo ma mag nañu góorgóorlu parce que booy dem demoo gratuitement tu donnes au moins quatre cent mille cinq cent mille mais avec quatre cent mille francs am na ñoo xam ne ko amoon seen business dox na. mais peut-être gën a bëgg lu gën a sakkan bëgg lu gën a yàkkamti man de man Diop du ma bëgg lu gën a yàkkamti peut-être que ku nekk aussi ak millier bi nga nekk parce que kenn du juger kenn xamuñu lan moo poussé nit ki mais man dama leen di woowaat à la raison nañu patienté waat nañu góorgóorlu li ñu yor du nar ko jox borom gaal yooyu nga xam ne ñoom du ñu dugg ci gaal yi ñi ñuy verser xaalis bi du ñu dugg ci gaal yi kon ñu xam ne risque moo ngi ci ñoom la ñuy jël yàpp leen si ak le capitaine de de de pirogue ñu dem mais ñoom ñi encaissé du ñu dugg kon yow ñi encaissé sama xaalis bàyyi ma ma dugg dem dans l' aventure yow demoo man may dem damay jël sama xaalis dem jënd ci samay daal di carax jënd ci sama leneen lépp loo xam ne suñu borom wërsëgal ma yàlla li mu rëdd ci sa jëb yi balaa ngay dee di nga ko jot ci sa loxo bi ala kulli àll am na ñoo xam ne dem nañ Europe ison ont regretté lu tax ñu bàyyi fi seen liggéey je di dis parle en connaissance de cause parce que man Cambérène laa dëkk am na ñu réussir dem ak pirogue bi am ñoo xam ne réussir ñu waaye fay nañ jënd parce que ay mool lañ mën nañoo jënd diggante Cambérène Yoff Ngor ba ba Kayar mais du ñëpp ñoo ci rëccee noonu te am na ñoo xam ne bi ñu demee dañoo regretter la pourquoi ñu bàyyi fii le peu bi ñu doon am fii nii dem foofu parce que sedd baa ngi fa ngay jaay ci mbedd bi ay pakoti ñu lay dàq ji mu ngi fa amoo papier dafa metti au fait l'extérieur c'est dur boo fa demee séjour mën naa neex ci yow mais boo fa demee pour toog liggéey nga xam ne yàlla julli la santaane